dal leen a jàmm mbokki internet ñu ñuy bàyyi xel fii ci yaatal vision ci xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo lu ñeel nag mbirum Mame Mbaye Niang ginnaaw porte plainte gi nga xamante ne bii tegoon na ko ci kaw looso kii di Ousmane Sonko jiitul Pastef ni ko noonu nag ginnaaw biñ ci génnee ci ay fan nag moom mii di Mame Mbaye ab audio boo xamante ne bii partagé nañ ko ci internet bi ñëpp di ko jàmb jàmba jole moom mi nag di Mame Mbaye Niang mu taxaw nag di jëw ki nga xamante ne bii moo di njiit réew mi Antoine Félix Diome ak ñi nga xamante ne bii ñoo ko dar ak ki nga xamante ne bii nag moo di Marème Faye Sall di première daam maanaam soxnaas Macky sàll njiit réew mi moom mi nag di Mame Mbaye Niang si mbaaru na ci seen kaw ba xolam sedd mi ngi wax ne Macky sàll tële na mën a tuut waaye kat mi ngi xamle ne Macky Sall moom mii ñi nga xamante ñoom ñoo ànd ak moom di ko liggéeyal déggalatuñ ko lijjantiwuñ ko faalewuñ ko waaye it moom mi ngi xamle ay wax yoo xamante ne bii kenn du ko partagé ci yenn xeet yi moom Mame Mbaye Niang mi ngi koy yëkkani ko ay kàddu lool nag bu jubee ñu si bëree bëri ginnaaw bi ñu liiree li nga xamante ne bii mooy audio yi Mame yooyu jàpp nan ne nag Mame du mas a wax li nga xamante ne bii moo di wax ju ñaaw joojale yëkkee ko jëmale ko ci kaw ki nga xamante ne bii moo di président Macky Sall waaye kat du yëkki kàddu yoo xamante ne da koy jëmale ci lenn ci gouvernement bi di gouvernement bi Macky Sall bile ñi nga xam ne nag ñoom seen liggéey dafa des lu bëree bëree bëri waaye nag ki nga xamante ne yàlla da kaa jàppale jublu ca ki nga xamante ne bii moo di xëy nag kin jàppe ne ab noonam la di Ousmane Sonko waaye it xam na ni dëgg ji ala kulli xaal foofee rek lay masa féete ji moom ma mbay Niang loolu la ne ginnaaw bi nga xamante ne bii nag ojom bi nga xamee ne partagé nañ ko mu siiw lool ci internet bi ñëpp di ko waxtaanee fii ci biir réew mi ginnaaw démb ba tey loolee nag indi jeexi jaaxa ci xelu ñu bëri bëri bëri ginnaaw kàddu yi nga xamante ne bi moom yëkkati na ko moom Mame Mbaye Niang lu ci mënti xaw rek des na ko toppandi ko ay xibaar jëmale leen ko fii ci Yaatal Vision la chaîne de l'actualité